Casino tey mën na la gagné loo cinq millions suba mu ñëw lekk sa cinq cent millions billahi wallahi na wax ndax tabax na kër na wax ndax jënd na oto na wax ndax jënd na vélo na wax ndax am na këru terrain kese amut xaalis buñ ko waa a doon jox fu mu ko dugal Casino bee teegal ndeyam nañu wante dëgg bu mu weddi sa sañul weddi loolu te bu ñu avancé wuyu ma xam nga lu ma waxal lu la neex mais bu ma saaga. saaga wu ma la de dama ne casino bi. waaw waaw wuyu ma rek wuyu ma rek gis nga dama lay wax gis nga dama lay bàyyi nga wax ba pare. dama la tontu mais dama ne la dama ma rek dama la déglu ma. jël sa doom caba. exposé ko di Ousmane yàq sa der dem wal fajri amul lum laaxut nga albati ko tey naan way ay déglu ma xam nga nag nga xam nga ah, nag euh, man nee naa la ma xamal euh, wax ko tax dafa am lu bari lu may daw mais góor bu amee fit am sañ-sañ mën a toog di fen ay fenam nga am fit am sañ-sañ ba mën a tegg ay fenam yëpp nañu wax diggantam Adja Thiaré ñiy falsifié yëf yi Sira boo ku man yan yëf falsifié yan yi Adja Thiaré ma mu waxoon waaw gis nga ba mu bëggee mu ñaar day ñaaw non damay may heureusement mu ngi fi continuel maa ngi lay déglu nag ñëwal si loolu yaa ko falsifié yaa ko tëdduma kaso ñëwal may may ndab ba pare rek wax ma ma ñëw wala ma noppi. ma wax mën naa wax ñëwal ñëpp muté fii. Hmm. man sama baat ni poto Fouta Tampi kenn du ko ne cagala kenn du ko wax lu bon waaye dama ne gis nga fii Adja Thiaré maa ngi waxoon coup et volontaire or que du lool am lu ko ëpp lu ko raw na fi. maanaam ñu falsifié yëf yi et fii la ma fekk maa fekkee la. tubaab ma fekk la may may. boobu ba tey ñu ngi tëlli tëlli doo bia ah, maa fekkee la xam damaa fekkee démb fekkee tey gis nga xam nga lu may bañ ku bëgg mu ñaaw day ñaaw te bu ma waxee rek dëkk bi yëngu fii la di tëb di daal di wax may seral di jaay neex di tata bi nan la ñu waxal waxal su ma waxee dëkk bi day yëngu ci biir yi doon daw fii nii ci mille personnes na wax nan lañu ñu falsifié dossier bi ak ku ko falsifié ban docteur la ban gendarme la na ñëw de contrôler suma laaj la lépp neex mënoo foofu da may may man ma contrôler débat bi man ni ma ko bëggee fuuta hmm. sa temps de parole moo jot hmm. téléphone mu ne bëggul sutura ci yow Mhm. lajul sutura ci yow mais soxlawul sutura ci yow mhm. dafa ne bul ko rusal ki bul ko rusal ka yow lepp loko xamal to mhm. ko waxul da ngay fen waxal ko lim ko xamal te bu ko ragal yow su fekke demee na ni waxal la fi bal yim la waxal yépp nga tok na no damay ki ça veut dire que amo lo wax su dee am nga lo wax joxna la temps de parole développel ba daade kenn dula la yëngal waxal man sama temps de parole ma ci war fay yom man duma nek di tari tari di laal fii di laal fii di laal fii man lu ma bëgg wax dama koy wax ragaluma ni dafa am lu ma doon seet nit lu mu seet nag man dama seet dama ne la c'est Ahmed Cissé gendarmerie ma ko am fii. Mhm. te bureau ba ñu toogoon. Mhm. te xew fi di daw muy tëf tëfi ñuy woote gauche woote droite yëf war a génn jee fee ca hôpitalu lii ba Firi Madeleine Senghor bi xaw ma bu garaa yox eh, ba ñu jël dindi lépp changé ko. na ndaw si dafa vierge woowal Adja Caare Caw nga laaj ko ndax mas naa vierge ba mu xamee góor du tay dañoo xam ne mbir mu génnee bal tàkk tay at lay tëdd ñu jël ñu ne xale bi dafa vierge ñu topp ko coup et blessure euh, volontaire fekk du woon loolu gis nga fii lu waaye mën a xamal nit ba wax rek li ñu xam dafa bari te am Ahmed Cissé booboo gën a ndaw nag. dama yan ñoo gën a rëy. defal ko boo boo gën tuuti. ne ma xam da bari te buma waxe dekk bi yëngu xam nga luma bëgg. Adamo dama lay jël may ma rek may ma non di nga dem di nga dem di nga dem. dama ñu Fouta. Mhm. ñun ay mak lañu. bul foye suñu xel yi. ñu da ngay wax ne suma waxe dekk bi yëngu suma loi na dekk bi yëngu waxal nak eh da ngay wax de wala nga nopi wala nga wacc waxal. oui ma Cheikh Ahmed Cissé dama nekk Dakar gi te amu fi bàjjen na ci yoon. waaw dama nel dama lay jël en témoin yow. jël Adamo en témoin jël onze mille personnes ñu tey en témoin ma ne Adja dafa mais kon kon su ma la ma déglu ma mhm. ci gën a ndaw fekk ni man dama di jigéen. waaw am ci yoon bu ma ne may ma am ci bu ma ñu may xaar fu ne lii bëgguma ko woon mais dama ne ñun li ñu xam dafa bari fii ñun kenn ñu ne ay cagalañ kaddu ñeneen fekk nañoo góor lu waaye neex nag mën ngaa wax waaye doo ñu waxee loolu kenn du wax tamit fekk nañ ci boor wala dama ne fii fi am bari na xëy na CMS xam nga wax ji mooy lan damaa bëgg lu waaye wax na waxati mais désormais Fouta Tampi la mu mayeeti la mu maye woon dootu ko mayeeti ku génn midi daal sama kaw dinaa génn seen bët benn par benn teg ko ci taabal bi askan gi ci teg seen bët. Fouta te kenn du ci mën dara. Fouta même Fouta kenn xoolatuma da ngeen di toog ba mu dem un million like ma dindi commentaire yi su àggut un million dootuma teg dindi commentaire kenn du commentaire léegi tuuti yow may neen la temps de parole mais wax dëgg neex yàlla yow suma taalibe nga suma jigéen nga mais waxoo fi dara Kaliphone mu ne bëggul sutura yow soo xamee loo wax ak loo bëgg a wax ko loo fi waxu rek du dëgg waxal Kali mu ne bëggul waxal wax ji wax ko soo mënta wax amoo loo wax nel amul lu ma wax waxal da ngaa dégg de barke sax nga man du ma ragal man at bi ma ragal juddoo man. man góor bu ne soo xamee waxal man tubayam man sama tubayam jàkkaarloog man ma takk sama la fu sa te jàkkaarloog moom. mais dafa fekk ni mbir mu sensible te salte da nga koy rus maa nga daw ko. déggoo ma de dafa am rek waaye jomb tuuti. kon ñu jox Adamo parole parce que amoo la wax dafa jomb tuuti rek waaye xam naa ne nii nii bu nii nii mu ñëwee nii lu baax la nañu dem bu ñu demee nag. nit jommatul dara nit seetatul dara lépp la ñuy la dañuy lu ñu war a wax dafa am loo bëgg a participer Adamo désormais may ma rek fi may daanele maay ma rek ma rek may ma rek ma daanele ma contrôler suma live man Adamo may ma rek ngi da nga am parole waaw même ma daaneel fi may daaneel mooy. waaw ma ma rek. Adamo da nga am parole waaw xaaral ma may ma rek. damaa ma ne di nga ñëw. am tuuti ma koy fàtte Adamo may ma. waaw léegi ma koy fàtte. li hmm. may wax rek mooy. boobu ba tey maa ngi daw yegg naa terminus bu ma kenn woo bu ma kenn ñaan njëkk bu ma kenn wax man ndax ku ñaan duma la may ku ma woo duma la wuyu sagam nag ka ngeen jur mu doon seen nag ngeen mënulu dara asamaak man mi nga xam ne juruñu ma xoolatuma dara mais waxoo dara bu ma kenn ñaan kenn ñaanu la waxal kenn ñaanu la bu fi ne bu ma kenn ñaan quand kan moo lay ñaan kenn waxu la aadamoo ñëwal waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziare Cheikh Ahmed ma lay nuyu Kaliphone Sall Fouta Tampi ñëpp di leen ziare bu baax. di leen bëgge. Euh, démb seetaan naa live bi ba mu jeex mais ñaari kàddu laa ciy sànni rek yoo xamante nii waaw benn bi dama koy jëmale ki nga xamante si nii moom mooy Kaliphone Sall bala maa ñëw ci ñenn ñi parce que kalifon yow ku la gis. day foog ne nit ku muus nga maanaam nit ku am xel nga maanaam ku intelligent nga ku xam àdduna nit ku baax nga nag mais sa muus ak sa intelligent ak sa am xel dafa des lu bëri parce que boo toogee jàkkaarloog nante bu mel ne Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Ahmed Cissé nante sëriñu nante yëpp di taxaw di wax a yow di dugg ak yow ci ay pièces Amadou Ba ñaata la la foo jëlee xaalis bi nangam nangam fan la jaar nga ubbi sa gémmiñ naan jaarale naa fii Fuuta Tàmpi jaarale naa fii Bouclier na naa fii Xaadim kii jox na la temps jii jox na la temps foogoon naa loolu waroon naa des ci seen diggante yéen ak Fuuta Tàmpi ak Bouclier ak Xaadim mais du woon ne yow yaa waroon na yëkkati ay kàddu toog fii naan defal nga lii Fuuta Tàmpi yóbbu nga Xaadim fee ba pare yow kilifa yi nga doon jëflante sax dëgg leen a weer tey ñu ci mel ne Farba ñu ci mel ne ñeneen ñeneen bu àdduna doon tey du jëflante yow. la jox xaliss man bo gisee sama diggante amé ci man Macky Sall rek la bëgg président Macky Sall rek moma ñor sama aduna ñepp ko xam ku dul Macky Sall faalé wu ma la mais xam nga lan motax nit mënu maa waxal dara comme ci ni nii ma ci dugal awuma intermédiaire ci nit awuma man direct lay communiquer awuma intermédiaire ci kenn suma ma bay wax ak Marie Faye Sall may wax ak mom man personne suma ma bay wax ak Amadou Sall man a personne lay doon suma ma bay wax ak président Macky Sall. man en personne aw ma intermédiaire man nit du jaar ci nit naan nii ak nii man dundeewu ma noonu mais def naa débat bi yëpp fi mu egg nii yëpp Khaliphone Sall moom moo ko fa yóbbu parce que Fouta Tamp mii li nga séq ak moom nan bàyyi ay affaire casino yooyu kooku sam la bu ko neexee sax mu umbi dus ba dugal ko fa foofu yoonu kenn nekk fi mais fi may waxee mooy li ngeen séq ci li nga ko yóbbu ak fi mu ko jaarale mënoon naa ñàkk ci live bi Khadim Gaynde li ngeen séq ak fi ngeen jaar waroon naa mën a ñàkk bouclier tamit di nit ku baax waroon naa mën a ñàkk parce que ba ngeen koy def yéen la woon sutur la woon yeneen ci doon seen am seen xaalis ñoom génn ñu wax yow waroo génn demaa di la cuq ba ngay wax loo xam ne waroo koo wax kilifa yi dina la xeeb ay nit dina la xeeb te ñoom da leen tuutal saltel seen image même bu fekkee sax demewul noonu man bu doon man la du ma ko def président Macky Sall laa bëgg xoolal Macky Sall laa àndal tey ànd ak moom guddi. ànd ak njabootu Macky Sall bëgg leen lool mais adduna du yàgg man ba ma wax li may jëflante kilifa yi meeg seq naa koog ñoom sax du ma wax lenn loo xamante ni dana faussé débat barke Serigne Babacar si te yow xamante leen bu baax yàgg na noo waxtaan mosoo gis fu may tooge man di wax naan waxtaan naag lii ak diw def na ne le géewu politique bi nangam nee na demee mukk parce que intéressé wul nit ñi li nga leen di expliqué na yem sa diggante kilifa yi ak ñi ko seqal. ko koy expliquer dañ lay duggal nan danan ga dana la ci xas dinañ saaga sa ndey ñoom danañ saaga sen nday ne len da ngeen di trafiquer ay nit da ngeen don wut ñu len di saaga da ngeen na jël xaalisu rew bi te amana na ñoom lim lay jox bo liggey am ko munu ñu leena defal yéen lu ngeen ta am duggal sa bop la ak salté sa image fokk na wax ji fu mu yegg ni yépp yow ya ko fa égalé bu fekkenté na nak parole yi dafa am lepp lo xamni dala cee métti maa ngi jéggalu mais man la laa débat bi man nak sama batti kaw cheikh ahmed cissé ma intermédiaire ci digënté nit ak nit ci politique man ma la koy wax man may communiquer directement man en personne motax man kenn mo waxal dara waaw loolu laa ci don sañ légui merci adama bo tëjee sa micro yaakaar nga ni wax nga nga nan way ñom farba ngom ak patati par ku dul farba ngom sax li jëntuma mako man toguma fi ne farba ngom ma saafa yóbbu yëkkati na li wala lenen kon yow déggoo li ma la wax de influenceur yi ñu jëlone comme charge de mission lu parce que bagn ko defé danoo def caché ministre bi signé barki Baba ay de mission ñi ñu jël ay charge de mission sax dem Facebook merci beaucoup jomay fay si charge de mission bi ñu def comme ñooñu nu lolu lañ fi waxu de mission taxawuma fi ne yobuna mi si nit mu may xaliss lu ben mamboy Mame té bo tay mu di wax may wax dafa am kii bu doon nit njaay njaay njaay lu ma ko wanoon wax si kaw suuf sax dina ne ma sama góor nga loo ma wax nangu naa benn instant ba muy toog fii li ko Omar yëpp ma ne ko damay bañ ma dal dal la bul saaga Macky Sall parce que damay bañ ëllëg nga ne juum naa loolu laa ko doon bañal ma taal sama live rek. ma ne ko Kali dagguma la de. dagguma la de Kali dama naan Kali dagguma la de. man débat bi de may ma rek dama jël sama temps déglu ko yéen yëpp. ba nga naan gay na Macky da nga ñu jox ko may ma rek may ma rek ñu jox ko fa deux deux millions. muy yuuxu di wax bu kër jël nga cent mille waaw may ma rek. waaw jël nga sa loolu